président Macky Sall personnellement est-ce que mës na la woo pour que yow nga ñëw ngeen waxtaan euh, ci jafe-jafe économie bi. je pense que loolu moo ko tardé. loolu moo ko tardé ba léegi amul ba léegi def ko ba léegi amul xam naa li tax mu koy éviter. Mhm. am na lu ma koy topp. loo xam ne engagé woon na ci. lan nga koy toppee. problème bi fi Ablaye di bu mu fi Ablaye indi woon sur institution de Mimran ñu téye ma mooy borom suukar si Ablaye de recevoir ma créé en otage au prison en prison. deux mois de détention préventive. bi nga génne ci la nga doon laaj un million il a fallu génn un million génn pour c'est un chantage. ok boo fayul doo génn foo ma sa déggee loolu. douane da ngay am nga ñoom problème sax bu réel da ngay signé. d'accord dafay ndànk nag demal douane nga xool la fa nekk ci contentieux. man nag Moussa Watal sama dossier doon dossier de douane ce dossier politique la dossier bu présidence doon gérer Macky Sall la ko gën a xam. bi mu faloo bi muy tekki entre les deux tours mu ñëw inaakuwa ma interpellé ko mu ne ma dana ko réglé bu faloo dana ko réglé ba mu faloo léegi ça fait onze ans mosuma politique yàlla bu ma politique non politicien ko géré man dama politique léegi dossier boobu lan nga ci bëgg boobu noonu nga jàpp yow da nga jàpp ni euh, loolu moo tax président recevoir la ba léegi dossier boobu lan nga ci lan nga ci bëgg quinze milliards lay laaj quinze milliards pourquoi parce que dañ ma jël ma nekk en pleine activité ñu dugal ma kaso arbitrairement yàq sama crédibilité yàq sama alal yàq sama lépp yàq sama léegi loolu dañ ko war a réparer wala dañ ko war a bàyyi nag. d'accord léegi nag réparation bi. moo tax may laaj quinze milliards. te lu tax ma koy laaj. ba ma koy laaj année bi la mais au début bu muy soog a falu sept milliards laa doon laaj. te ma ma Moubarak Lo moo ñëw seet si ma ni président la nga wax lan nga bëgg ma bind loxo mu ne ma sa xaalis pare na da nga ci on est en 2023 11 ans ba léegi jotuma dërëm. léegi nag léegi nag. Kajoor bi ma koy bi ñuy def si les kii la la les rencontres bi ñu defoon présidence. Mhm. bi ma wax ba pare lu mu li nga dégg mu wax yow Moussa dañ dañ fan yi léegi gisewoo leen. d'accord léegi man dernière question ma lay laaj. balaa c'était mhm. on est quoi on est en quoi en mois de de mai. ça fait combien de mois maintenant. <laughs> dina <laughs>